waaw asalaamaaleykum yéen amateuru l'oreille du monde TV yëpp man Thierno maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wàcc seen wàccuwaay di fas yéene tey waxtaan bi di ci ànd ak sama papa Seydina Ousmane Dramé muy ay kàddu yoo xam ni kàddu laayante biir rek la parce que ñu ñëpp réew mi moo ñu ñor yéen yi ñuy déglu réew mi leen ñor ñun ñi di wax ak yéen tamit réew mi rek moo ñu ñor pour mu defaru ñu jëm ci ay élection yoo xamante ni. tey dañ ci soxla pour am si majorité bu yaatoo yaatu tey li nga xamante ni loolu lañ bëgg a waxtaan ak yéen ak yàqu-yàqu yi nga xam ne moo amoon ci réew mi ak jafe yi nga xam ne moo am ci réew mi te kenn bu yóbbeewu ko réew mi ku dul ci sàll ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon tey ñoom tey ñu taxaw tey ne dañuy laaj pour am kàddu ci assemblée bi loolu yaakaar naa ne ñun sénégalais yi waratuñ sax di leen may ñoom fi ñu taxawee di ñu laaj ñu leen di jox gis nga nit boo ko joxee bopp waroo ci làmmiñ tey Ousmane Sonko dañ ko war a dooleel jox ko maturité bi nga xam ne moom la soxla ci ensemble bi bu ko defee ñun li ñu bëgg ci réew mi ñu mun koo am li may wax toujours rek yàlla teral nañu ci suñu suuf am nañu ay ressources yu baree bari mais suñu njiit yi nga xam ne ñoom la ñu amoon ñu waroon koo mën a exploiter exploiter wuñ ko dañ koo jël di ko jox tubaab bi tubaab bi di ko exploiter di ko jariñoo tey loolu moo ñu dal ba France ci exploitation or ñu ne France moo jël quatrième te France boo xoolee biir France lu nduroog pëndaxu or amu fa waxantuma la ak or France fu jëlee loolu diggante Sénégal ak Mali. loolu nek lo xam ne suñu njit yi ñu amoon tey ñoom ñoo leen yombalal loolu ba loolu mëna am buñ amé ko koo ne dafa ñew na gis naa ne tey ressource bi nga xam mom moom am war nañ ko mëna jariño tay liñu wara def lu du and ak mom nga jël réew mi jox ko assemblée waru la jaxal dama ne assemblée bi nañ ko jël ñu jox Ousmane Sonko à 100 ñu gagné ko à 100 bu ko défé réew mi. li nga xam ni bëgg nañ ko ci réew mi loolu mën a am ñu mën a tabax suñu réew ñi nga xam ne mooy nitu caaxaan yi fi nekkoon jël suñu alal di ko foowe tey ba nga xam ne tey réew mi santé bi dund bi lépp a ngi nekk en faillite tey santé bi dara dara dara dara gënta sooxe santé senegal te ñooñu noonu ñuy wax muy Amadou Ba mii muy ba ngoom muy ñeneen ak ñeneen ku ci feebar du ci réew mi ngay faju parce que ñoom ñoo la gën a xam fi santé bi nekk te fi santé bi nekk kenn yóbbu ko fa ñoom ñoo ko fa yóbbu tey milliards yi nga xam ne jël nañ ko séddoo ko ñoom bu ñu jëloon milliards yooyu def ko ci sante bi tey santé bi jafe-jafe yi mu am du ko am ñun ñooy dem ci sante bi di fi faju ñun ñooy nekk ci santé bi kon ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla dogal amuñu doole. pour génn réew mi suñu feebaree fi la ñuy fajoo suñu lépp ngi fii ci réew mi kon nañ leen ànd ñu jéem a tabax réew mi système bi nga xamante ni ñoo jël suñu alal di ko fooyee ñu jéem a gas ba mu xool ñu suul ñu jéem a xool ni ñu def ak Ousmane pour ñu liggéey suñu réew mooy nañ ko jox majorité cent pour cent assemblée bi ñu ànd ak moom cent pour cent pour gagner assemblée bi dafa am benn maire boo xam daf ma woo. ñuy waxtaan mu ne ma li ngay wax ci job si lu ci gëna bari dëgg bu wër peng la dafa am loo xam dinaa la ko seedeel mu ne ma gis nga Diop si réewandem ag na foo xamante ni da ngay wax rek mu dagal la ay saaga ma ne ko loolu yéen ko ko nangul job si kum ci saaga fayu leen parce que job si gënu leen tey bu nekkee dara yéen a tax mu nekk dara bi muy laaj tiwaawan dafa nekkoon di leen neexal ñëw fexe nax nax leen ni mu leen naxee mooy mu jël doom jox leen ay liggéey di leen fay chaque mois cinquante mille ngeen ne waa jii moo fi gën élection yi jot ngeen ànd ak moom jox ko mu daggal loolu bi mu njëkkee toog li mu njëkkee dafa daggal loolu ana liggéey yooyu mais bi dama wax nga dëgg man ko gis nga Diop si ak ñi mu àndal entouram ñu ci bari du ñu ay waxkatu dëgg soo leen bëggee dégg dëgg mais bi ne ma sama doom lan moo ciy solution ma ne ko li ciy solution lu yomb la ma ne ko jël leen doomu réew mi ngeen fal ko am na ñu nekk ci réew ma di am ambition pour defar dëkk bi di ñu baax di ñu yaru ñu jub ñu am diine mu ne ma comme kan man ko Tiwaawan de li ma fa xam bariwul mais xam naa fa ku ñu wax madame Ba di ku baax bi mu amee problème ñëw naa toog ak jëkkër ji ma wax ak moom muy ku gëm yàlla muy ku dal ma ko ku mel noonu tey mu ngeen ko def meer muy ko am ambition ci Tiwaan am yéene bi ñu toogee waxtaan man bi ma waxee moom dama ni kii xëy na Ousmane dafa jël ndeysaan ay militant wala ay nitam def leen ay Ousmane bi ñu toogee man ak moom ñuy waxtaan dafa mel ni Ousmane laa toogal di wax ak moom muy nit ku am ambition muy nit ku am yéene muy nit ku jub muy nit ku honnête ku gëm yàlla muy Alassane Ba premier jour ma ko gis. yàlla xam na ko gàmmu teewaat mu ne ma da ngay dama bëgg yéen équipe L'oreille du Monde TV maa leen di dalal ñu ñëw dal ak moom muy ku baax di ko wàcce boppam di nit ku am yéene di ko am ambition ma ne ko fal leen kooku doomu réew mi la te boo leen ko falee li ma leer ba leer lii ngeen di jooy moom dina ci jóg parce que ku am yéene la te ku xam ku xam li diine santaane la mu ne ma wax nga dëgg de mané ko lolu moy problème bi def len lolu ngén di ngén am solution solution bi yépp du dara Alassane Bala pour man mom la xam xawma nak parti passif ni muy doxé bir Tivaouane mais man mom xawma ñi ci dess mais xamna ko mom ko ku bax la té ko am ambition la dama ko xam ci waxtaan bi nga xam ne séx man ak mom mu melni Ousmane la togal di wax ak mom kon di len ñaan ma bañ a guddal waxtaan bi di leen ñaan ngeen partager vidéo bi te ngeen aimé ko bu baax a baax a baax a baax di may sama papa Seydina Ousmane Dramé Moussa ni ci ay kàddu yu am solo di leen ñaanaat encore une fois yeewu leen ci élection yi ñu jëm 100 pour cent Pastef 100 pour cent Pastef biir ensemble gis nga am na ay door yoo xam buñ la ko dóoree wala mbéj boo xam buñ la ko mbéjee yaa koy fajal sa bopp faj biñ koy fajal sa bop moy lan jël len seni i carte ngeen jox ko Ousmane muy 100 pour cent Pastef ci biir assemblée bu boba lepp luñ bëgg faj dina faju te yaakar na suñu rongoñ dina suñu rongoñ dina fer. tay pour ñu mëna am lu bëgg loi admissé bi gaay di wax pour ñu mën ko daj il faut ñu am majorité bu yaatu bir ensemble ñom Ousmane Sonko mëna dindi tapalé yi nga xamné Macky Sall mom la défon muy admissé bi ñu mën ko dindi mën leena top ci crime yi nga xam def nañ ko ci réew mi ak ñaawteef yi nga xam def nañ ko ak banditisme bi ak salte yi nga xam ne amoon na ci réew mi ñu mun leen a cee topp ñun ñoo mën a dimbali Ousmane ñoom ñu mën a am doole ci loolu pour mën a topp ñooñu tey bu fekkee ne ñun bëgg nañ loolu faju yi nga xam ne rey nañ leen mu am suite nañ leen fexe ñu jox Ousmane majorité assemblée pour loi amnistie bi ñu mën koo dindi pour mën a topp ñooñu kon may may sama papa rek mu dugg si kon papa bismillah asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences ah, ñu del si waatam rek euh, bëgg waxtaan ak yéen waxtaan woo xam ne dañoo bëgg ngeen déglu nu am xel euh, te bañ ñoo dégloo ab xol am xel dafay tatane am xel day superviser ab xol am xel day faram-fàccee à part des arguments awee ko ci xam-xam la science pour mën définir deug wala mu définir lo xamné une logique la wala mu définir lo xamné dañuy bokk jëriñ kenn ubi xel yi baña doni doon làppatoo réew mi kenn moomu ko kutul noonu kenn moomu ko kutul noonu te kenn ku ci nekk defe naa ne bu ñu yëkkati ab jànq war nga jàpp dëgër am réew bala ngaa wax ni lii moom la ma réew mi war a jariñ yow ci sa bopp da ngaa war a nangu li nga war a jëriñ réew mi nga di ci xëy di ca gont boo xëy réew mi di gontal réew mi sañ nga ne kat réew mi kët lii la ma ameel waaye tant que fi nga tëdd jógoo fi li nga war a kaasoo ko li nga war a xalaatoo ko réew mi amee loolu dara yaa koy bëgg amee li bon kon bismillah ñu tàmbali waxtaan wi ñu door waxtaan wi rek euh, di leen xamale nag yàgg dañ koo dégg euh, saagawuñ kenn waaye mag ñu baax ñi lay saagaak max ñu baax ñi lay wax ak mag ñu baax ñi nàngam déedéet dañuy situation boo xam ne euh, dafa war a leer ci boppu nit ñi moo war a wax ci dem te kenn xaabaabu lu ñu wax rek am na lu ca des lu ñu waxut waaw dafa saaga mag ñeeg mi ngi wax ci mag philosophie parfois vous n'avez pas des arguments vous allez directement à la violence wala ngeen di saaga fi kenn saaga wu fi fi nekkoon lu baax lañ def lu màgg lañ def ba ñu taxawal ko gérer te wuñ ko gérance bu baax loolu képp moo indi wax ci waaye ki des jóg ba philosophie man naa dajale lu mat mbooloo mu tol noonu kooku respect baa nga fa lépp nga fa waaye organisation bi moo baaxul maanaam ñu lay tànnaloo gerte daa ngay duy say poos yooyu moo soof nit ñi di di ci wax waaye ñi moom tarixa yi sant xoola ñu ngi leen di félicité di leen gërëm patrimoine lañ fi def patrimoine bi nag mënuñu koo def daa mel ne ku liggéey avion wàcce ko fi te ñi ngi ko dénk mënuñu koo dawal avion bi dana xomaat te du jóg loolu mooy problème waaye saagawuñ ma sàmba wala ma demba kon bismillah eh, ma door waxtaan wi waaw ngeen bal ma bala ñuy door waxtaan wi eh, ma tegal leen eh, li nga xam ne gouvernement bi wax na ko ñu bokk déglandoo nombre de milliards yi nga xam ne état du sénégal na ne noo ko amel banque mondiale ñu leen xamel li lii buñ ko nangu ameluñ leen ñaari dërëm askan wi amalu leen dara waaw nan ko bokk diglu nag ba noppi door a mën a indi waxtaan wi bu nee ba ca fin bi ko tegaat ngeen ngeen koo dégg encore une fois saagawuñ ma Demba saagawuñ ma Sàmba dañoo bokk luñ bokk ngeen tungu ca ko bokkoo lekk te boobu te yéen a ngi koy lekk askan wi gisuñu dara kon bu fekkee ni ñu ngi topp ay bor ku dib Sénégal woon ngaa jóg wax ca noonu dong la kon bismillah ñu bokk déglu. wax ji mu leer nañ ñun ñëpp ñu bokk déggandoo waaye bu lii mu leer na moom dafa wax rek waaye bor bi ëpp na lii fuuf ëpp na ko fuuf kon baax na bisimilah ñu déglu ko. boru Sénégal deux mille vingt bii jeex. mi ngi toll ci fukk ak juróomi yu teg juróom-ñaat téeméeri milliards. boru mille vingt trois bii mi ngi toll ci. fukk ak juróomi junni milliard ñu tek juroom ñaat téméri milliard boru Sénégal 2023 bi jeex mi ngi tollu ci fukk ak juróomi junni milliard ñu tek juroom ñaat téméri milliard waaw noo ko bokk déggandoo seize milliards li tax xam ne dañuy fenn ëpp na loolu teer bi teer bi ñaata milliards lañ ci lépp teer bi képp ñaata milliards la bor boobu buñ jógee ci loolu itam kan xool pétrole installation pétrole yi bi ñuy def fii ñaata milliards la loolu rek buñ ko dendalee buñ ko dendalee daanaka day lekk génn wàllu seize mille milliards yi da koy lekk da koy lekk Euh, ay làmbatu baaxut nanguloo deful itam jullit bu koy def bu ne weddi nga yàlla nit loo xam ne def na ko na ko nangu lum mu defut bu mu ko nangu bor yi fu ñu xam dañ ko fa jële fu ñu xam dañ ko fa yóbbu waaye musul yooyu nekku ci kon euh, ma tàmbali waxtaan wi السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله أه، من سيدنا عثمان درامي بولا ربي دي كونسيانس أه، أه، خانا دلو دلين زيارة دلين نيو دلين مساو تدلين دوكل تدلو دابور دلين سونيكي إلكشن يغخني ميغي ديك y y ko les municipalités élection yooyu législative yi dikk e carte dans le ko sol ci ab saako le président Ousmane Sonko Rémi, la situation amener, tout un Sénégalais doit prendre sa responsabilité yéen ñëpp ngeen déggee bor bi nga xam le Sénégal amee na Li président Ousmane Sonko wax. ëpp na ko dama ne romb na vingt romb na vingt mille vingt mille milliards mën na ko te lii ma leen di wax bu ne ba waaw pour le cas de Ahmed Khalifa ak Samuel Sarr mbir la mu yàgg moo xam ne euh, gouvernement bi fi nekkoon ñoo ko promotre ba mu am ba am Samuel Sarr ku dëng la ku dëng ku dëng la maison du Sénégal bi nekk à New York lu ma ci dajul amut site bi demoon na ba di ko nangu ñu sàcc benn parcelle jënd ko au niveau des Nations Unies ñi ko sàcc Samuel Sarr mi ca la Sarr bi mu ñëwee ci broker bi nga xam ne moo yor moo leen jëndal bagage yi broker bi ci boppam broker bi ci boppam business carte la ko jox bind ci Samuel Sarr homme d'affaires moo Paul Badji ñoo ko dox ak Abdoulaye wadd dañ koo sàccoon am na benn parking boo xam ne moo tax moo taxoon ci building bi parking boobu dégg naa ci wax ni ne waa kër Macky Sall ñoo ko sàcc ñoom moo tax war nañ ko vérifier xool dama bu leen fontoo dañ leen a ngeen toppatoo àlli réew mi na ngeen ñëw New ngeen investiguer building bi building ne ko building bi parking bi am na ci la bokk mais parking bi damaa dégg ñu dañ koo dagg waa kër Macky Sall ko jël féete ko waaw bu fekkee ne ñoo ko sàcc féete woo ko nañ jóg nañ jóg man dama ci daan xeex guddi ba cëg suba ngoon di dem maire yi bu ñu leen bindee ay ticket may dem bi ko jéema a régler ji ak a toppatoo dama cee daw bay bëgg de dee du ma nangu du ma nangu Macky Sall di ko di ca am benn mar parti waaw dañ jël bi lii yëpp nangu ko parce que alali Sénégal moom a xale xaalis ñu jubul nañ ko téye euh, problème mu oto yooyu procureur bi na jóg saisir ñu jóg taxaw ci xale yi duñ ko bàyyi de plus de trois milliards kenn ku ne sàcc ko téye ko ba ko dundee denk Touba làq ko fa ah mais xale yi duñ ko nangu de building bii building bii bu neexoon association des Sénégalais d'Amérique dañ koy perte waaye maa jóg ànd ak association bi taxaw di ci xeex di ci xeex di ci xeex ba xam ni mu demee ba état bi nangu ko waaw dama ni cité bi doon na ko jël ndax mbalit mi fi sotti këyit yi ñu fay taf ak lépp waaw dama daan xëy di ci xëy daf ci vingt-quatre heures kon du ma nangu man du ma nangu ah ñu jël ko di ko dëkkee nun nuy xoole waaw kooku duñ ko nangu même association des Sénégalais d'Amérique war na fa am bureau ba ma ciy xeex bëggoon bu noppee bu noppee ñu daggal na fa bureau waaw moo tax ma gën a cee sondo waaw dama ne bu leen lu fontoo képp ku jël alalu Sénégal wala ku ci dugg muy ab sëriñ muy wàll yu mu di dëmm muy xut bu samaan ak kuy naaw guddi ak ku mën a doon ku ne Ahmed Khalifa ji da nga ko génne oto yi leen nangu lépp duma leen leen ab sàcc dañ koy tëj waaw loolu lislaam joxe ñëpp joxe ab sàcc dañ koy tëj Samuel Sarr Samuel Sarr fi mu làqu ci dëkkub jullit te ngeen di Tuubaa dëkku diine la di làq ay sàcc ki sàcc loolu kenn d'accordu ci Ahmed Khalifa c'est un voyou il faut le prendre ñu jàpp ko téye building bii nag dañ ko jëndee xam ne ko dara wumpuñu fi Ablaye Wade bi mu ñëw ni mu indi xaalis bi xam nañ ko FBI ñëwoon na ci Grand Hôtel di di ko di ko di eh, defa investigation boobu moog yaay jàmme ñoo fi daje FBI dugg na fa di jéem a seet ba xam parce que xaalis boobu dañ ko indee moo légalul te rewum ma fi xam naa ni mu demee waaw nañ ko teg ci yoon moo gën a wér kon may jéggulu bu baax a baax a baax te waaw di ñaan jàmm di ñaan jàmm bëgg nag ñu déglu Euh, Falilou Keita Falilou Keita euh, wax ci nga xam ne wax na ko jëme ko ci lii may wax tey mu bëgg ko dëggal jëm ci mbiri oto yi nga xam ne am Khalifa Niass moo ko sàcc ànd ko ak Samuel Sarr Samuel Sarr di la ku goree di ministre de l'énergie ñëw fii di am ànd ak lay Wade di mbuxum dama ne kii nañ ko topp bu mu génn Sénégal fa mu nekk xam ngeen ko am na kër Touba fa lay làqu ñi mu war a dem Gambie bu demee ñu téye ko England lay jaabanti dama ko dikk sacc la il y a quelques jours je suis tombé sur un rapport de 2013 ou 2014 qui avait été rendu public dans lequel il est clairement mentionné que monsieur Ahmed Khalifa et monsieur euh, comment s'appelle encore Samuel Sar doivent 3 milliards 500 à l'État du Sénégal qui doivent rembourser et c'est consigné noir sur blanc dans le rapport. Pourquoi Parce qu'il y a des voitures qui ont été offertes par le Sénégal, que ces personnes-là ont détourné et ont dit que ces rapports-là, ces, véhicules-là, ils les avaient achetés et les, ont vendus à l'État du Sénégal. Donc si on consigne dans ce rapport-là public qu'ils doivent 3,5 milliards ces gens-là, jusqu'à cette date, doivent rembourser ces 3,5 milliards là. Et il y en a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs comme ça. Et ça, c'est le rapport public. Vous prenez le rapport de l'OFNAC il confirme l'histoire des 94 milliards. Si aujourd'hui Ousmane Sonko sort et expose les 94 milliards, rapport et propos, propos qui ont été confirmés par l'OFNAC après la sortie d'Ousmane Sonko. Si aujourd'hui on tape sur euh, ces personnes-là qui avaient été directement euh, impliquées, notamment l'ancien directeur des domaines, M. Mamoud Diallo ou M. Taïrou, ces gens-là devront forcément répondre. Si Ousmane Sonko cite leur nom, nous savons que ça a été consigné dans un rapport. Aujourd'hui, ces éléments dont Ousmane Sonko dispose, Cette affaire, elle sera euh, aujourd'hui dans ces éléments euh, Ousmane Sonko dispose il est donc Ousmane Sonko dañ ko wax rek diko téléphone diko wax léegi Ousmane Sonko fi Macky Sall togo na tok di ubbi tiroir yi jàkkaarloog lépp li mu toogoon coon ci lépp koy gis wa mo bëgg nak New York yi nay investiguer building bi nañ ko investiguer ma ci félicité Abdoulaye Thiam Abdoulaye Thiam bi dox na ci ba dag Abdoulaye Thiam dox na ci ba teppiku tan dan jóg dem diko nettoyer ci ngir bañ rek fofu am ay ticket waaw pour bëgg rek Sénégal récupère ñu sant yàlla bu ko Sénégal jotee te Samuel Sarr ba nëgë ni fayul peine bi dañ ko war a jàpp téye ko tëj ko waaw nan jël lépp jox Ousmane Sonko ci élection yi dikk mu téye lépp bu ko defee da mën a jóg futtiku liggéey normalement sàcc yëpp ñu def leen ci biir kaso bii waaw maa ngi ziare ñëpp te yii nag waa Pastef fi nekk New York lii ma leen wax mooy li am waaw amul lu mu ci réccu wala lu mu ci réccu waaw kan bokk teg ko ci xam ne booy jubal da war a jub boo jubbanti da ngaa war a jub booy aar wala ngay defar ak njuba jiitu xam leen dañoo ame seize mille milliards yi yu ñu war a fay nay dem ci xel yi. alal ju noonu duñ bàyyi kenn kenn di dem képp koo xam ne si yor nga lu lu réew mi ko moom danañu lu dumati des na ko jël waaw des na ko jël kon maa ngi ziyaara waa New York li ma leen wax rek moo am euh, noonu la demee woon New York euh, passé na kan bokk nag séeréeran yi te xam ne. bo góorewul mana mën a dem fenn kuy jub jubal jubanti yow sa war nga jub ak ceytaane jub ci yow waaw kon Paul Ba maa la yónnee vidéo eh, asalaamaaleykum asalaamaaleykum eh, Paul Ba eh, man la sidina Ousmane drame maa ngi lay ziar dégg naa nga wax ne dama téléphoné pour balu àq man ku may balu àq kan laa àq kan lay balu àq ak ku ma amal ak lan laa def lu jaaduwul ba tax may balu too tooñu ma kenn am naa lu ma naqari te li ma naqari rek euh, du ci man maanaam euh, askan wi nga xam ne ñoo toppoon projet bi nekk ci bàyyi seen yitte ñu taw ci seen kaw ñu taxaw di défendre Pastef ak parti bi taxaw di défendre Ousmane Sonko taxaw di défendre suñuy cause ma gis loo xam ne jubul mu nekk ci diggante Pastef bureau bi ak ñi nga xam ne ay activiste lañu woy seen bopp bu dee activiste lañ lay jaay kenn jëkkuma cee dugg dama depuis 1982 musuma manqué Nations Unies ren laa ko mas a manqué te boo samay noona fi nekk te bi fi samay soppe nekkee ma dikk mënumaa dugg defuma ko kaa

ku ma ci ëpp ak ku ma ci gën a gëm Ousmane Sonko gisuma ko ku ma ci gën a bëgg gisuma ko ci dafa tolloog nag naa fekk noonu lay joué ay rolam Ousmane dëgg la woote te ñu wóor def du dëgg Ousmane jubal la woote te wóor na ne ñoom di def ak jubal Ousmane jubbanti la wax waaye ñoom dañoo dëngal dañoo dëngal am na loo xam ne aw aw aw suuxu yaram wuru nangu loolu la waaye man dama toppatoowul sax pour nu ma toogee ak jomaay intéressé wu li ma intéressé woon nag mooy bu ñëpp waxee ma déglu segg indi samay xalaat ndax damaa bokk ci comité bi doon nit dama ne am na ñoo xam ne bu ñu duggee ci biir toog man Ousmane Dramé ku ñëw ci saal bi ne ma loo ci bitti ah kooku du sama fot moom seen fote loolu rek la te tey laa gën a jàpp Ousmane Sonko tey laa gën a bëgg yàlla nag mu ma won ma jàkkaarloog naafiq yi nga xam ne ñoo ko topp waaw ñoo ko topp te ci weeru la ñuy mujj weeru ci la ñuy mujj ndax yàlla bu tànnee lu sell ba teg ko lépp doon lu sell ñëpp yaakaar ci ak seen lu sell yow nga tàmbalee ak ndëng ak ndëng wala nga tàmbalee loo xam ne dëppoo la ñi nga xam ne loolu lañuy woote nga ne ci leneen boo defee ne raw nga rawoo. waaw suñu borom dafa ne am na ñoo xam ne euh, damaa takk ak buum ci seenu tànk am picc am picc sànni ko mu dem heure bi moo ko bëggee dama ko ñëw di mu dikk ma napp ko kon yu mel noonu boo ko xasee xam sa sago ak dal ci nga mën a dem waaye képp ko ne nekkoo ci dal nekkoo ci lu jub bu dee mbaar dina dëpp ci sa kaw loolu rek la mais maa ngi sant yàlla maa ngi bégte aw ma benn problème aw ma kenn problème lii ñu def nag neexuma am naa ci droit te ci naafeq lañ ko teg teguñu ko ci dëkk te lii wax ñu buñ ko déggee xam ne naafeq bu sëkk lañ def te du ma kenn nag kon may ziare ñëpp waaye tuub moom mosuma la ma waxoon baax na jaajëf. Euh, euh, suñ kàddu gu mujj daal mooy jub jubal jubbanti comme ni ko le président de la république waxee képp ku fi jëlloo moomut booy nga raxas ko set delloo si ko. bu ko fekkee si loxo da nga sonn da nga sonn da nga sulort lol dama ne képp ku fi jël lo momut nga lokko yabbi ko nga delloosi ko waaw te building bi nek New York building bi nan ko xol nan seetaat building bi nan investiguer building bi lima ma nan ko investiguer euh, ministre des finances fi nekkon dara la ci xamut job dara la ci xamut assemblée xamut ci dara ben groupe de personnes groupe de mafia ñoo dikkoon sacc xaliss Sénégal jëndee ko ko comme jot nañ ci jot nañ ci nañ ko topoto mom leer nañ ko lijjanti mam leer bu ngeen dikkee fii New York man ngeen avocat bu ko lijjanti avocat yi lijjanti ñi ngi fi waaw ni def ba tabax building bi xam nañ ko dara umpunu ci dara umpunu ci waaye da ngeen sol seen daal ngeen lijjanti ko alal ji wërte demee noonu ay nit fi nekkoon sonn ci lool ku mel ne Ablaye Thiam maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax mooy musta noppalu ku jóg ànd xalaat xam ne lii Ousmane Sonko décidé c'est l'intérêt de tous les nun noo ko fal provoquer une rupture. Quand nous nous sommes en train assemblée nationale à 100%, 100% de l'homme. Réunion de Fatiaso, Tiaso, Gohamne, Ousmane a besoin de 100%, 100% Assemblée nationale. Li Mougen. Parce que, fin de du fof, t'es fini qu'on l'indique barina. Dengen légui, le premier ministre, dengen

askan wi lébuñu ay nit ñoo leb tuturu askan wi bor boobu Ousmane du ko fay Ousmane ku am fayda la xam ne lébuñu ko boroom kër bu génnee ci biti wër di leb wër di leb nekkul ne dañoo war a nangu tool yi waa kër gépp boroom kër gi moo lebi woon na ko lijjanti Macky la dem ak Ablaye Wade sàcc ci turu Sénégal leb ci bor boo xam ne kenn xamul nu mu toll Sénégal seen yoon nekku ci dama ne seen yoon nekkul ci kenn ku ci nekk borom kër ga nga nekk kër ga bu borom kër ga génn ci bit lépp boutique naar yëpp dama ne naar yi amuñu droit dikk naan dañuy tëj kër geeg dañuy génne waa kër ne rey waa kër gi déedéet ñaari Mali Ousmane da ko fay jóg leen ngeen ànd ak moom ñu bokk jóg taxaw waaw ba nit lépp fekkewu leen ko seen yoon nekkul ci bor waaw li nga xam ne sax moo jaaru ñi nga xam ne ci kër gi lañ dëkk yore bor maanaam ci réew mi yore boor ni leen sol ci ay saako yóbbu ca ñan amel ñu jox leen ko te ñu génne nu ci assemblée nationale jox ko Ousmane cent pour cent billaahi am na fulla yoo xam ne dañ ne tubaab bi demal seeti que signé woon ñu suñu assemblée nationale musta yëg bor bii bor bi xamuñu fu mu ne ci réew mi dëkk yi nga xam ne dëkk diine la te ne def nañ fa ay quelques milliards te mënuñu ko prouver Ah, responsable ni leen japp boole politiciens yi yóbbul banque mondiale dama ne kilifa yooyu ne leen sol ci ay saaku ah yóbbul banque mondiale ne ko ñii ñoo lekk xaalis bi waaye askan gisuñu ñaari dërëm bu ngeen dof dofloo nag kenn ku ne tool ba nga doon bay wala la nga amoon muy sa wërsëg ñu ko nangu wala ñu war caa domp di ko fooye ay bor du ngeen nit te Ousmane am na fu la ko réglé kenn jël 100% assemblée nationale jox ko nga xam ne bu mën naa tëdd ci ndi xalaat lu muy def wa bi jeur mu ñu ba assemblée ah, nationale di xalat man na tëdd këram xalaat la muy def ak nam koy defee ba bor bi Macky ah, Sall lepp nako fay day fen la dette est une nécessité la wax wër di leb di fen ah ablay wad Macky Sall bi ci Abdou Diouf mi borin fi bàyyi xale yi mun leen fay li tax jangulen faju wulen lekulen di dugg ci gal yi de ñet ñi ñet ñi ñoo lepp ki seeni tour bor yo xamne mu len ko fay bu nu dof dofloo nag pétrole bii pétrole bi ay bor lañ koy fayee moo tax ma leen tëj leen teen bi tëj leen teeni pétrole yi ba liggéey suñu bopp ba noppi waaw lii Macky Sall si ci àll bi ëpp na li ñu yor ci turbi li ñu yor ci turbi mën naa yor réew mi boo demee dans les pays scandinaves dama ne seen production bi nga xam ne ci ci ci ci bi dañ koy jëlee moo yor électricité bi moo yor énergie bi presque moo yor quarante pour cent énergie bi xam ne mooy dans les pays des scandinaves kon nun buñ ci yàlla maye lu tol non nu yor ko nañ ko fonk te am fulla jog sun bopp Macky Sall yàlla bor bi demal fay ko jàpp leen Macky Sall sol ci ab saako dem ba banque mondiale ngeen kii leen amel ñun amulul leen dara bor bi sax ëpp nay waxtaane suñ yoon nekku ci ñoom ñu ko leboon nañ ko waxtaane ñun suñ yoon nekku ci muy Abdou Diouf di Ablaye wad di Macky Sall képp koo xam ne nga ay bor dama ne le gouvernement des responsabilités mooy na leen sol ci mbuus yóbbul ñam amel ñun kenn dërëm kenn du fay ñaari Mali ñaari Mali rek nit du ko fi fay waa dëkk yooyu nag ah ne dañuy tabaxi jàkkaak dañuy màggal ak dañuy gàmmook dañuy def nangam ak di def nangam ñuy leb ay bor ah di ko gàll ci ndoddum Sénégal ñoom ñu koy bànneexoo ñu tabaxi hôpital yi di ko vider di sàcc kenn ku ne xam na ne milliards yi ñu wax di def nañ ko Touba ci inondation yi dem leen xool ana lum njëriñ waxuñu dëgg xaalis ba anamu séddoo nañ ko ba ci hôpital bi néeg nañoo lekk xaalis bi nit ñuy sëñ Sintiaan yi sonn nañ trop boo demee Tiwaawan noonu jumaa ji dul àgg ci ñoom la jumaa ji fekkee naa ci lu bari ah. taxaw naa sëñ jiili jiili Mbàkke euh, sëñ sëñ sëñ jiili ala jiili bu Louga joxe wuli su xaalis taxaw naa Njuga Kebe joxe wuli su xaalis taxaw naa sëñ Cheikh Mbàkke joxe wuli su xaalis taxaw naa sëñ Abdoulaye Mbàkke joxe wuli su xaalis taxaw naa état bi ak Richard yi kenn ku ne joxe mais lu dugg ci jumaa ñu séddoo ko jumaa ji kañ leen tegoon fondation ak kañ la noppi tey milliards lañ ci dellu mu door a noppi xaalis yooyu ñuy taafantu di lekk ak di wékk réew mi ay bor Ousmane Sonko doo fay ñaari dërëm doo fay ñaari dërëm waaw xaalis mi leen bu li ñu lim tojaat jàkke toj leen jàkk yéen ko def wala ngeen xam lu ngeen def waaye kenn du fay juróomi dërëm benn sénégalais dal du jaay mbaamam di ko foye ay bor benn sénégalais dama du jaay xar di ko foye bor waaw gouvernement bi itam lii nga xam ne moom lañu am dañ koy fajoo jangale ko suñu top to leen ci dama ne kenn du fi ciopati ñaari mali diko jox kenn ñom mi lebon nañ ko fay waaw dama ne boroom kër gu ci bor leb ba ca ba lap ci bir bor ba kala amel bor dik ni dama nangu sa toli dom dama nangu sa toli jarbat dama nangu sa toli nangam est-ce que lu deug la ah amuy leen kenn ñaari deureum amuy leen kenn ñaari deureum na assemblée nationale gem loolu nag pour nu mën ko gëmandoo cent pour cent cent pour cent assemblée nañ ko jox waa Pastef hundred pour cent hundred pour cent nan ko voteel jox ko waa Pastef cent pour cent cent pour cent bu ko def bor yi Ablaye Wade lemoon nañ ko jëli tàpp ko dumay doomam jël leen jébbal banque mondial sol cib saako Macky Sall nu ñoo réer ñun ameluñ kenn dërëm assemblée bu leen ko nangu moo tax Pastef nu ko téye cent pour cent te taxaw jiital Ousmane Sonko Ousmane ku am fulla la ko mën a lijjante la billaahi ku ko mën a lijjante la ma jàkkaarloo mu waxam mu xam ne goro ngi nii xam ne borom fite ngi Ousmane tubaab eh, xotti gerte xotti gerte la yemale waaw yéen ñi bokk li diine nag bor bi ne yéen yéen def projet ne da gën bëgg nangam mbubboo ko ñu ne dañuy defar te dañuy defar ci kër dëkk bi lépp ay milliards te bu xaalis bi dikk yéen sëriñ si da ngeen koy séddoo wax leen ma milliards yi investi Touba anam wax leen ma ko neen dut sa baaraam ne mi ngi nii ana xaalis ba ku ko lekk ñenn ko jël taali bi dañ cee jote taali bi dañ jote ci xaalis boobu demale ah, dama ne sëñ Bas yaag Macky Sall fi newoon bu ngeen yorelee adduna bi jël leen seen poos ngeen dem fay ñun amee kenn ñaari dërëm man de sama dërëm du ci dem sama juróomi dërëm du ci dem réew mi musuma jëriñ te rek laa leen di wax ba ma juddoo di Ousmane Dramé ba ndëgëni billaahi wallaahi taalaahi barke alxuraan ñaar témir sénégal musuma ko lek man kenn musuma fee fay francs lek guma ko ci sénégal hein ah? ba pare woni ko nak na dama ñu ci ali bi liggéey bi bëgg dé diñ ko fayali ay bor dama né duma ko def duma ko def waaw yéen buñ ko nangu waaw pour mu mëna nek nak 100% cent ngeen di voté assemblée bép bép Ousmane Sonko contrôlé ko ak le président de la république gis nga bu ñu contrôler assemblée bi mën nañu téléphoné di sax di liggéey waaye kan xaar assemblée suba kan xaar ginnaaw suba ay assemblée déedéet dañuy jox aw fit pour fu nekk ñu mën a commencé liggéey waaw waaye bor bi moom seize mille milliards ëpp na ko vingt et quelques mille milliards la ñuy wax vingt et quelques milliards la ñuy wax waaw kii naan c'est une nécessité pour ñu wër di leb dama ne waxul dëgg. nit ñi dañuy jël seenu bopp dem liggéeyi waaw mbay mi képp mën naa am Sénégal gépp autosuffisance alimentaire bii mbay mi képp dama ne les industries transformation mën naa embauché genn wàllu réew mi géej gi li fi nekk képp mën naa am embauché réew mi dundal réew mi liñ am ci ndox mën naa arrosé suuf yoo xam ne mën nañ ci liggéey bay dundal Afrique di exporter di jaay lu neex te développer industrie bi te téye suñ pétrole bi ak suñ gaz bi fi téméré suñu dom lañu ko soxla waaw jollin assemblée bi 100% Ousmane Ousmane mi ma xam dana ko téyé dana ko tek ci yoon bor yi ñuy wax lepp benn Mali du ko ci fay Ousmane leen ëpp fit juróomi dërëm du leen ko fay ndax Sénégal yi jëluñu ko bu ko Sénégal yi jëlun nak d'accord waye jëluñu ko gisuñu ko lekkuñu ko sëriñ ci ko sédd politiciens yi nan ko waccu nan ko waccu génne ko kenn ku ne xam na né Touba gee ah, ay milliards dem fa ana xaalis ba ma xaaj nga dañ ko suul bàqa ya xanaa ana xaaj ma nga baax ya fu ñu xaalis bi ana waa Teewaan ana xaalis bi ana waa Ñasini ana xaalis bi ah dama ne ana xaalis bi bu leen di fontoo kenn du fay juróomi dërëm taalibe yi sonn nañ lot nañ dee nañ mënatuñoo dem suñu doom gi tàbbi ci géej gi di dee mais na koy xaru dama ne kenn du fay ñaari dërëm. lu man loolu foog njël assemblée nationale jox ko Ousmane Sonko cent pour cent mu téye lépp ci ay loxoom dana ko mën a lijjanti bi léegi dana ko lijjanti Ousmane du joxe ñaari dërëm xam naa ko xam naa ci lu wér du fay dërëm état continuer ay fen la ki ko sàcc lépp ko na ko fay maa ngi jégalu bu baax a baax di ñaan réew mi jàmm te doyloo Ousmane cent pour cent cent pour cent cent pour cent assemblée nationale nan ko woteel waa Pastef ñu mettre le contrôle man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences